ci wàllu napp gi la ñuy dikk wax euh, Union européenne am nañ ci yéene bu bees yéene boobee nag am nañu ko gisewul ñoom nañu ko jàppee ah, ba tax na ñu am yeneen xalaat yu ñu ci am dañ ci ànd ak fàtt bintu Konte ak Ibou Cissé ci leeral. nga xam ne ñoom ñooy waa union européenne dañoo taxawal benn réforme bu bees pour mun a defaraat li nga xam ne moom mooy seen politique de pêche mu nekk loo xam ne dina gën a tax ñu gën a am benn maîtrise ci seen ressources halieutiques yi. réforme bi mooy Europe dem na ba xam ne euh, ni ñuy nappee am na problème puisque soo xoolee ñoom presque amatuñu jën jën yi yi ñu lekk Europe presque quatre-vingt pour cent yi bitim réew lay jóge ñu ne nag foog ñu toog xoolaat ni ñuy ni ñuy nappee ay affaires yooyu di def beneen euh, réforme beneen politique loolu mooy indil réforme politique yi. Europe nekk ab partenaire état africain yi war a xoolaat réforme boobu bu baax ngir mën a xam lan la leen mun a jural ëllëg ci seen politique de pêche yi. Europe ñu ngi réformer seen. code des te réforme boobu mën naa am ay impact yu mag si napp gi fii si Afrique ndaxte yéen ñëpp xam ngeen ni gaal yi Europe yore mënatuñu napp biir Europe puisque presque jën yi jeex nañ foofu ñu bëgg ñu leen di yónnee ñu ñëw di napp si suñu dëkk yi su dee nag dañoo toog rek di xool Europe ba Europe def li muy def ñu soog a nekk fii di réagir trop mais nag boo dégloo ñi nga xam ne ñoom ñooy ñii ñiy ci napp gi fii ci dëkk bi xam ne ñu ne réforme boobu nag du ñu tëb tëb rek topp ko dañ ci wax liñ ci mën a def. matuwaay yi mooy que Europe règle yi ñuy respecté Europe nappkat yi foofu nañ ko respecté fii Europe nañu jàppale ba également ñu mën a saytu suñu jën yi parce que dafa am ay nappkat yu jógee. ay Europe ay Asie feneen ñëw di napp suñu jën yi si yoon yoo xam ne jaarul yoon donc ñuy ñaan Europe comme ñoom am nañ doole am nañ techno technologie ñu jàppale ñu ba ñu mën a def de telle sorte que ñu xeex loolu. bu ñu seetloo sa dëkk africain yi napp bi daf ci nekk loo xam ni dafa xaw a doy waar. ci ñun la ñun nit ñi parce que du toujours nit ñuy nappe mooy nekk nappin bu baax loolu nag mun naa wax ni ci loolu moom euh, gouvernement bi mi ngi ci fas yéene jublu bu baax mais jublu ci bu baax ànd ak. Euh, ñi nga xam ni ay ay partenaire am lañu maanaam nappkat yi ak ñeneen ñi dul nappkat sax pour ñu mun a xool nan lañ mën a def ba soppi doxalin. réforme bi li nag état dañ ko war a mun a saytuwaat bu baax a baax ngir mën a jàpp ci seen politique de pêche yi surtout accord de pêche yi nga xam ne kenn respecté wu ko.